dégg naa biñ ko nee xëy na biñ ko nee ñokkali bàyyi man dama bëgg ngeen xam ne rek euh, kii suma doom <laughs> du dog c'est mon te dama fi ñëw en tant que collègue en tant que yaay comme ni ma ko waxee sama page Facebook tey kii mooy suma doom c'est mon surtout Ablaye Wade la du ragal nag da ngeen koo xam <laughs> kii nag sama yaay la ni ko waxee noonu la kii sama yaay la kii sama rakk la. waaw boo yee surtout Samara du ma sama ak ak ak yaay maam Diarra. di di samay assistante nag. à tous niveau à tous les niveaux à tous les niveaux. man nag ma assistante la. ma war a leer de waaw di samay assistante may seen assistant. waaw man